dama ne woon la wala saradoo doon te delloo si woon na fas wa yow da ngaa kañ topp ci mu naan ba dig ba jot nga ni ko delloo sil ma fas wa ah dégg nga de kamaala sa doon te sàkkoon naa delloo si ma fas wa ah mu des juróomi malaan la dañ koy tere ñu ne faaw mu ne ilaan sab xandre boo def na alxam si juróom yam aj ñaa ba ca dig ba soo ko ne nga continué juróomi malaan yi ba dig ba jot nga door ma ko andil delloo si fas wa mu taxaw taxawaayu juróomi malaan yi yan comme fukki malaan nga sanam la woon di ko topp fas yi bu ñu ko delloo si loo moo taxaw taxawaayu juróom ya juróomi ci des nga bàyyi ba dig ba jot mu jox la ko kon bagal la ñu ne lu tax du ñu nangu juróomi malaan yi mu gaawee ko ànd ak fas yi mu ne li àndal mu aji la naka aji gaawee limaa ñe la xam ne ci simat nekk na ci baatam mu soli suñu aji leble la ndax bu gaawee andi malaan yi boolee fas yi dañ naan kon léegi dalaa lebal ndax juróomi malaan nga ko war na bàyyi ba dig ba jot mu andil la ko leble aw moo xir wala aji yeexe ba tey mu sallitul aji leble la yow itam boo bàyyee juróomi malaan yi mu jëm ba da lagal dañ naan da nga koo lebalaat juróomi malaan yi kon nag li ñuy nangu mooy juróomi malaan yi dig ba jot kese ndax boobu yëpp mene way ba leen jaay na dimaaran mbaam daata ci fukk ni ajal mu jëwul dig sama sara doo topp mu sàkkoo delloo ci mbaam wa dinaaran ak dinaar na xalan ci teew mu ne tereef na ko mut la xan moo xam dafa jëm de tereef nañu loolu mut la xan moo xam dinaar ba da nga naan ci xeetu njëg la bokk wala bokkul ci xeetu njëg aw mu ajjalan wala dinaar bu ñu dig mu ne xeetu na ko ba tey mut la xan moo xam dinaar bu ñu dig ba ci xeetu njëg la bokk wala bokkul ci xeetu njëg ni ko tey da nga ko ne mbaam mi boo ma ko delloo si le boole dinaar bu teew kon duñ ko nangu ndax dañ naan mbaam ma comme fukki dinaar nga ko leble woon mbaam ma juróom taxawaay juróom-ñeenti dinaar la taxaw dinaar bu teew dinaar bu teew boobee ñu indi moom nga xam ne dañ ko da nga koo joxe léegi waa ji dala koo gaaye kon nag su boobaa leb la njaay mu ànd ak leb dafa tàbb ci biir ilaa bi jëm semaine nga dinaar bi daa bokk ci xeetu njëgg li ajo mu jëm di baal boppam kon su boobaa dana dagal boo ko nee nag dinaar bi day boo ma andi leen mbaam mi juróom-ñeent dinaar defeen ma benn dinaar bu bokk ak xeetu njëgg ba dig ba jot dig ba ngeen waxante woon ci mbaam ma mu door a andi dinaar ba def dana dagal waaye bu mu gaawee dinaar bi de waaye si da leen dooleef na xëy ay nin lu lu dul mu kee jaasamu dagal ni ko da nga koo jaay malaan mbaam mi ci fukki dinaar mu dem ba dig ba jot mu andi mbaam ma teg ca cër wala teg ca leneen dagal lu jaasa ca kanam dafa xaddam dégg de te it su ko defee sëriñ bi nee na wayen bi andeen jaay donte jaayat na ko bi naqe di ci kee lan yokk bat bu goo xam ne ngëbeeku ngëbeeku ko waxtu wa jot mu indilaat la mbaam ma wëlbati ko dolli ci marchandise dagal la jaay sama dagal ñun ko jëlee ndeem gaawet na almasi bu ndollantal nag lam cey booleel na ko gaawe bu mu ko gis nga ne wasaay wer na awlu njaay mu jëkk min bu yoogi ay njaay digi faqat ulis njaayam ñaareel xam nga fu ñu ne da ngaa jaay ci laaj ci fukk mu jëw leer beneen nga di ko jënd ci juróom ñett léegi-léegi bu boo ko defee nag njaay mu njëkk ma nga ko jaay woon ci ku mu jëm wér wér na waaye njaayam juróom ñetti ñaareel moom la ñuy tudd saqat wala njaayam ñaareel ilaa ñu fotu nga ne boo faat na saani njaayam ñaareel bu fekkee nag njaayam ñaareel ñu ngi ko jëndewaat juróom ñetti tey mi teew kon koy saxaan ñu firi leen ñoom ñaar yëpp dégg nga de ñu ci jaam yàlla ba nga déggee def na firi ñaari njaay yëpp faatu njaayam ñaareel mos la xam moo xam salaat ci waxtu njaayam ñaareel te mu jëm njëkk nga fëri walu gën a bari walu gën a néew aw wala moom kay ba ñuy firi njaayam mu jëkk xanaa imkaan dem nekk na alxiimatu xayma salaat waxtu njaayam ñaareel aqal bi gën a néew njëkk jëkk ba waaye bu fekkee xamee ci laa si waxtu njaayam ñaareel moo gën a bari njëkk bu jëkk kenn du fi njaay mu jëkk moom xilaaful am nañ tamit ñaareel dañ koy bàyyi noona xilaaful am nañ tamit faslun jaasa dagan na li mat loolu ñeent ñu sàkku ñu nit ci moom sin atul ci laa an nga sariya mu jënd ko dégg nga de li yab yaa ngeen na jaay ko bi maalin ci alal dégg nga de loolu mooy ñu tuddee njaayam inatu gaa yi dañoo toog ci penc mi soxla nañu nag wu ñu rey wala gàtt nga nen naa jëndi nag di ko jox leen lebal leen dagan wala bi mu ajin donte njëg bu ñu dig la ba du woon leneen wakkori ak si déef na dégg nga de waxe ku ñu sàkku ci moom lépp mu ne ko si jàppal bi mee kii ci téeméer maa cilaatoo xam ne xaymaan bi sama nee ne juróom ñett fukk la dama lay lépp téeméer nga ni ma demal jël cilaatee xaymaan juróom ñett fukk la nga ameel ma téeméer ci nañ ko alfra wala mënu ko jëndal wa alfra wala jëndal wu yoon yi ñu junj lépp ñeel sonom léegi damay waxaale nga naan ma jëndal di junj naan ma da nga ci sonowu loolu ba tey ci nañ ko wala bu tàbbee wàcce wala mu soo dee ko firi di xilaat loolu naa ci saxaa jëndal si laat si baatin ci fukk naq dañ ci teew ni teew waax saa danaa ko jàpp man bis ñaa ci ko ñaar li ajal mu jëmut dik kooku dagal ni da nga ne waa ji demal ci garal ga jënd fa am xar ci fukk teew ni teew boo ñëwee ma jëm ko ci fukk ak ñaar loolu dagal ni su boobaa bu tàbbee wàcc wala si mati war na al fukk ya al amiri aji digle ji yow mi ko digle woon yow yaay fay fukki teew yéen xaaral leen wax na jëndal lii ñeel ma dafi fas ki ni ko war gaa firi nag in lam yokkul ndéem moo ko jëndal lii ñeel ma ndax danañ ko firi bu fekkee ne woo ko jëndal lii ñeel ma ak ñàkk gaa aw ildaa yi wala dañ koy wéel ci kanam tuuti dafa xaddam dégg nga de walu soo nii ca war laa ne gis naa asala fukk yaa ñaar ba ca digg ba xaw laa ne am na ñaari wax dafa xaddam tuuti ilaan sa foota nga de boo faat na bu fekkee tey bi nga ko jëndee ci fukk ñëw jox ko ci ko ñaar si laa si doo faat ci loxoom kon fay fay mat ñu dellu ci xayma bi yow fay nga fukk ba noppi ñu seet luy xayma si laa sama jox la ko wa bi xilaat loolu naag istara jëndal si laa si li ñeen daa ci fukk naq dañ ci teew na teew waax sama jàpp ko gis naa ci ko ñaar naq dañ ci teew na teew loolu daganul wa bi xilaat yi joo gis na ci topp daganul ba bëgguñ ci duy jeex te naq dañ leen teewal na almaamuuru ndaw la di sàkk ci sàkk sukkee ci laañe demal jënd ci fukk naq dañ ma dinaa ko jënd ci fukk ñaar naq dañ loolu daganul même bu waaje demoon teewal fukk yooyu yëpp daganul su boobaa nag wala xooñal na ndaw la ñu yónni woon akalu gën jaa néew ñun julli ni ci yoonu kemam aw dir amee ne wala ñaari dërëm ya fii ma ca ba mu ko ñëw jëndal da nga de ci fukk teew mi teew ma jënd ko ci fukk ñaar mu jëmub dik ak ba mu ko ñëw jëndal ci fukk teew mi teew ma jëndaat ko ci fukk ñaar léegi léegi juróomi kii lañ koy jox aw di amee ni wala ñaari dina ko tegu fii maa ci ñaari masala yooyu ba mu ko ne jëndal ci fukki teew mi teew ma jëndaat ci fukk ak ñaar ma jiw bi ak jëndal ci fukki teew mi teew ma jëndaat ci fukk fukk ak ñaar léegi léegi wala saru la gën a tënk ñu rëdd danañ seet ñaari dërëm yi te war na tegu ak jublu misif lañ la war a fay boo demee coono bu jënd ba lu ci ëpp lu ci gën a néew ñu jox la yow ndaw ñi wala saru la gën a tënk ñu rëdd wala saru mooy gën a wér laaju la déetub jólloo di ko ñeel am nañu du am sax am neexal wa jaa sa dagal na dégg nga de teewalu maamoor fukk ya bi xëy ri da nga de ci lu dul sàtt nag maanaam dagan na nga dem jëndi teewal fukk ya ci lu dul sàtt mu dina ne ci dagan gi mu ne ko naq di laanet ni ki teewalu laanet maanaam yow mi digle nga jox waa ji fukk da nga de ni ko demal jëndal ma ci filaa kooku dagan na su ko defee ndaw la bu dikkee nga jox ko neexalam maanaam jox ko ñaar dërëm ak yu dem noonu nga ne way nam yokku ndeem waxul jëndal lii ñeel na parce que jawaa si ci dagan gaana da nga de ni ko da nga ko ne demal jënd ci fukk te neewoo ko lii da nga de boo ñëwee ma jënd ci fukk ak ñaar da nga de parce que jawaa si ci dagan gawal karaati ak ci déel ndax loolu dagan na ak cim nañ ko demal jënd ci fukk ma jëndaat ci fukk ak ñaar te néewoo ko lii ndax loolu dagan na ak ci déel bi xaw laa ni am na ñaar yoon wa bi xilaat loolu dinaa istara jëndal ilaat lii ñaar la gis naa ko fukk ak ñaar li ajal mu jëm ak dik waa sara dinaa ko jënd man bi nekk dañ ci teew nag jaxasatin ci fukk naka dañ ci teew ni teew demal dara jënd ko mu xar ci fukk ak ñaar mu jëm ak dik boo ñëwee ma jënd ko ci fukk teew loolu it daganul su boobaa ko tal samu dana war xilaata bi lu sama ci lu ñu tuddoon te mooy fukk ak ñaar ya ko waaj a jëndi mu jëmu bik loola moo lay war yow mi ko yónni woon su boobaa nag walaatu ajul jéegul gaay asu ci fukk ya nga xam ni moom nga ko waxoon ne ko moom laay fay léegi kenn du ko gaawee da ngay bàyyi ba dig ba jot yow mi ko yónni woon nga fay fukk ak ñaar wayen ujulat ndeem gaayef na ko léegi fooki sat jàppee ko wala hoo ñel na ndaw la nag juulu mit yi yoonu ximam way nan yokkul yow waxul lii ñel ma waaw da nga ko ne demal jënd ci fukk ak ñaar mu jëmu bik boo ñëwee ma jënd ci fukk mu teew ndax kon te neewoo ko lii fa jamono ndax laa yoro defu jolo albay hu njaay ma di ko afaat ne faat na ci loxo te kon wala sa ala laay ma jëndi waa ne sunu fukk la ay fukk wala moom tay dañuy tudd saani ñaayum ñaayam ñaareel mi mutlaqan moo xam faat na wala faatu dégg nga de te xaw laa ñu am na ñaari wax te kan ilaa ne futu ndare boo faat na ñaayum ñaareel ni ci bi nga ko jëndee ren ni nga xarma ba mu dee kon fal xiimatu nga joxe xëy sëriñ bi nee na fas lun li aji fas la ji wax ak morom ma la ina maal xiyaaru xamal ne ko xiyaar bi sart nekk na ci sart maanaam boo jëndee si laa bëgg koo xiyaar da ngay sart te teer yi nekk weer moom itam dagal na sàtt si daari ci kër maanaam ngay jënd kër sàtt ni da nga koy xiyaar weer bu boobaa nag walaay sunu bu mu ko dëkkee waxa jumatin ak lu demee ni ki ajjuma moom itam des na ko xiyaar fi raqe seen ci jaam maanaam semaine waxa jumatin ak lu demee ni ki semaine fi raqe seen ci jaam des na ko xiyaar jaam bu boobaa wa sax demoo liggéey loot na jaam ba seet ba xam mën naa liggéey wala mënta liggéey wa ko salaatin ak lu demee ni ki ñetti fan dagal na sàtt si daabatin ci daaba moom itam ñetti fan it moom itam bu fekkee da ngay jënd daaba dagal na nga sàtt ni da nga koy xiyaar ñetti fan waka yow min ak lu demee ni ki bis jëru koo baa ngir war ka maanaam nga nga nga xiyaar ko bis ngir war ko isayee ko su boobaa wala baasa ay di sàtt bëri di sàtt bëri ne ah dinaa ko war lu toll ci bëri maanaam bëri daal mooy fukki kilomètre ak ñaar wala lu ko niru asabu asab nee na wala bëri dini ak ñaari bëri bu fekkam ni ni ci nekk waxu dégg nga asab jooju ni ñaari bëri xilaafam di wax wuute wax ibnu xaasim jëne mu ni bëri ndax kon da ab wuute su boobaa dañ leen di yem seen taarif baat mu noppallu dégg nga de ibnu xaasim nee na benn bëri asab ni ñaari bëri am moom kay di wuute ab dëppoo la ba Ibnu Qasim ne bëri dafa xiyaas jëm dong te xiyaasul jël ci asam ni mu ñaari bëri dafa xiyaas jëm ak dikk te doon nañ ci deng deng boo ko salaatin ak lu demee ne ci ñetti fan dagal na sàpp xiyaar ñetti fan ci saw duñ ci malaan wasaar yom na njaayum xiyaar ba de battin ci ginnaaw njaayum bàtta maanaam jënd nga lépp ci laaj njëndum bàtta dagal na nga sàpp nag ni da ngay xiyaar seet nangami saa nga nga continuer wala nga bàyyi mu ne waaye jaam yàlla ba nga déggee dagal barabu yëru xiyaar ci ginnaaw njaayum bàtta dégg nga de xanaa in naka dem teewal na fokk da ngay teewal ba noppi door a sàtt xiyaar am moom kay moo xam teewal na wala teewalul dagal na sàtt xiyaar ci gannaaw njaayum bàtt taw laa ni am na ñaar jantal su boobaa wa demin woo war war na ko nag classé almustari aji jënd ja ah boo jëndee njëndum bàtt ba noppi nag ni maa ngi xiyaar ba xam dinaa continuer mu def yaa ko warul de bu dee nga ñàkk ca kanam tuuti wa inee sin foofee mu sàttee xiyaar ci gannaaw bàtt sëriñ bi nee na yaa koy warlu mu ne fasal yàqat na njaayum xiyaar di sàcc mosoor di sàcc diisoo bay din bi daal di sori yow da ngaa jënd silaasi njëndum xiyaar sàcc na di ngay diisoo fu sori kooku day yàqu xaw ma desin wala diir saa yi din bi daa jot diiru xiyaar njaayum xiyaar ma day yàqu ndax xiyaar lenn lu nekk sàttal nañ ko diir boo sàccee diir bopp nag day day yàqu xaw ma desin wala dégg nga day diir bu ñu réeré da ngaa bëgg a xiyaar diir bu ñu réeré kooku moom itam njaayum xiyaar ma day yàqu aw xëy batin wala fàddoo alaamaat silaas soo xam ne laay rufu deful xam bi ay ñu ci jëmam li nga bëgg a fàddul boo demee kenn dootu ko xam kooku moom daganul dégg nga de maanaam nga di ngay fàddoog moom dégg nga de sëriñ bi nee na mu ni awlu ci sawdin wala sàtt wax doo malaan yow da ngay da nga maanaam jënd malaan sàtt ni dama koy sol ci diiru xiyaar bi ah kon da ngay yàq malaanum jàmbur kooku daganul bu tàbbate wàcc war a daga lot na ujurtoo yool ba la nga ko sol da nga ko fay mu ne waaye sama dana war njaayum xiyaar nag ngay wax di di xidaa yi ci jeexub diir ba bu diir ba deexee rek te delloo si woo njaay ma war na waaye warul def na ko delloo si si kan xaadi ci lu demee ne ci ëllëg ah su boobaa nag képp ku xiyaar nekkoon ci sa loxo bu diir ba jeexee te delloo woo kon njaay ma wér na waaye waru da def nag suñ xadis li toll ci ëllëg ni ki tey démb la jeexoon nga indi ko tey ñu wax la nga ne damaa amoon ngan kooku def na ko nangu ndax benn bis moom yàggul sëriñ bi nee na wa dana nga ne wa dana yàqu njaayum xiyaar di sàtt naq diñ sàtt teewal yow yaa ngi jënd ci laaj njëlum xiyaar sàtt ni da ngay da ngay teewal loolu dëgg na ka xaay di nitam lu ku fàdd maanaam koo xam ne da nga day maanaam maanaam jaay lu fàdd sàtt teewal dëgg na maanaam que ni si lëf lu fàdd nga xam ne ñun ñaar ñu koy jaayante gisuñu ko ma daal di sàtt ni da ngay teewal léegi kooku daganul ko udat salaatin uday ñetti fan uday ñetti fan moom itam daganul sàtt teewal maanaam da ngay jënd loo xam ne da nga koy udawu diir ñetti fan ah bëgg a sàtt teewal ni da ngay teewal léegi kooku moom itam daganul waa def ak tolonte jàmbu ñu jaay jaayum tolonte daganul teewal sàtt teewal nga ne wa addin ak suuf lam yoo man soo xam ne wóoreekul rajuwaa ak mëndeel suuf soo xam ne si da nga ma koo yoole maanaam lu ye bëgg sàtt ni da ngay teewal daganul te wóoluwuñu ak mëndeel nga ne wa juulin ak jooni loolu mooy demal wutali ma sama gëleem gu dooga boo ñëwee ma fay ne nangam dégg nga de ma daa nga daal di bëgg sàtt ni ma da ngay teewal daganul way jaaritin ak yoole li xir sa li xir sa in ngir waxtu mbay maanaam tey dama lay fay ngir waxtu mbay mi nga sàtt ni ma da ngay yoole léegi da ngay da ngay teewal léegi yool bi daganul wa ajirin ak bajji saaxara boo xam ne yéex na jëfam saxaran weer maanaam bajji boo xam ne bala moo liggéey day am weer dégg nga de mu daal di sàtt ni léegi dañ koy jox yool bi kooku ba tey daganul ma ne woo mu ne atareef na maanaam xiyaar dégg nga de teewal ba tey boo mu ne a tereef na teewal sàpp te du su mu waa det njaayum tolloonte ci kanam tuuti boo mu ne a tereef na teewal su mu waa det njaayum tolloonte waaye bi daa sàpp doot um sàpp la bépp jëréer bi ñuy tolloonte di seet mën a amul nga sàpp ne da ngay teewal loolu tere nañ waxaay din ak lu faddu lu faddu tere nañ sàpp di ko jaay sàpp teewal waaw waaw sëriñ bi nee na wakki daayin ak tont dumi na boo xam ne warloof na ko dégg nga de maanaam tont bu ñu warlu ma mooy tey dangaa tontu lu ñu warlu ni ko dangaa lu ñu fokk jàmbur wala ba tiku ah bëgg na waa ji ne da ngay teewal léegi léegi kooku dëgg wa salamin ak salam le dégg nga de moom itam alaamatu xëy yi ci app di di xiyaarin ci xiyaar bu la neexee nga ne boo mu nekk def na suma torontu di xiyaarin ci xiyaar dafa xaddam boo mu nekk def na teewal suma torontu di xiyaarin ci xiyaar maanaam tey njaayum xiyaar jëbër bi ñuy tolloon ci seen sax mooy bilaasab doon sax la waxaay dañ ak jaay lu faddu bi xiyaarin ci xiyaar dama lay jaay lu faddu nit ci njaayum kaana daga ñu tolloon ci bi xiyaarin ji la xaddam wakkilaayin ak tontu gumi ne boo xam ne waroon na ko bi xiyaarin ci xiyaar maanaam tey dama laa luye kër gi waaye da ngay seet da ngay xiyaar da ngay seet ci ma sàpp ñu ne da ngay teewal daganul wa salamin ak salam ne bi xiyaarin ci xiyaar ne ci tey dañoo fasante salam maag yow waaye nag da ngay xiyaar kooku daganul sàpp teewal wax sa bada wéetoot na bàyyi noonu aji jaay alaama soo tuxee yi ci appa bi soo keneen waaw ci kanam tuuti da ngay xaddam maanaam da ngaa ni danaa dama bala maa jaay lii damaa damaa diisoog jibu yoon may na la nga wéetu jaay ko sa boo diisoog ma aw mustalin wala aji jënd mën naa wéetu alaama soo këri càppa diisoog keneen da nga ni bala maa jënd damaa diisoog diw yoon may na la nga jënd te doo diisoog ma waaye laa xiyaar yoxuma xiyaar yi diw bala maa jënd diw dafa xiyaar mën ngaa ja wari daaw ak nangoom bala maa da nga de maanaam jaayit diw dafa nangu bu la neexee nga jënd te xiyaarul bu la neexee nga jaay te xiyaarul bu la neexee nga jënd te nanguwul bu la neexee nga jaay te nanguwul waaw waaw astafurlah laa xiyaar yow kuma xiyaar diw da nga ne bala maa jënd diw bala maa jaay diw dafa xiyaar bala maa jënd diw dafa nangu sañatoo jaay te xiyaarul sañatoo jënd te nanguwul waaye ba toll jam te mu doon ay dan may dellu dellu alaa na fii ca dàq wéetu ba fi mu sëriñ ci aji jënd ja waaye bu dee bàyyi xa moom dégg nga de mën naa wéetu bu ko neexee am na ñu ni déedéet mooy loolu bu ne bala maa jënd diw dafa xiyaar bu ko defee sañutoo jënd te xiyaaru waaye bu ne bala maa jaay diw dafa xiyaar sañ ngaa jaay te xiyaaru loolu mooy wax boobu nga ne waddal nañ jantal ci mu duwaan na alaa na fii ca dàq wéetu ga fil xiyaar ca xiyaar ja faqat wala fi daaxu ba kon nag ñeenti xilaaf la am na ñu ne bu dee xiyaar jaa daal moom man boo ne bala maa jënd diw dafa xiyaar bala maa jaay diw dafa xiyaar sañutoo jënd te diw xiyaarul sañutoo jaay te diw xiyaarul waaye bu dee daaw ba moom sañ ngaa jënd te nanguwul sañ ngaa jaay te nanguwul waaye xiyaar joon doo ko wéetu faqat wala fi daaxu ba mu ngoog nga ne wa nga ne wa def nañ jantal ci mu duwaan na àla anoo si naka moom masoolu loxooma te nga xam ne moom nga def xiyaar bi ak ridaaw ba ci loxoom kan wàkkili ni ki wàkkil rek la fii maa ci ñaari masala ci ci ridaaw ba ci xiyaar bi ak ridaaw ba am nañu moo wàkkil ñoo xam rek te wàkkil fu mu la neexee nga fonn kon maanaam boo ne bala maa jënd diw dafa xiyaar bala maa jënd diw dafa nangu léegi moo wàkkil yam fu mu la neexee nga folli ko ni ko banaa ko dem jaay te xiyaarul jënd te nanguwul nga ne war a bien d'accord ak ne mu sëriñ aji jënd kaata ba koo xam ne jotoo la yow da ngaa jënd si laa njëndum xiyaar dem jotoo tàmbali jotoo jàmb ñu ne nangu nga fayal aw sa wajo wala mu sëy loo ko ni ki tey da ngaa jënd jëleen njëndum xiyaar wala ba ci ko dem may ko jëkkër su boobaa kon yoon nee na kon nangu nga fayal wala ab dan donte jaam la woon nga may ko jabar nangu nga aw xasara wala mu jublu ci rafet jëréer ba talaw san bànneexu yow da ngaa jënd jëréer njëndum xiyaar dégg nga daal tàmbali bànneexu loolu kon nangu nga jeex na fayal aw raxara wala mu tay le ko kooku nangu na ni ki day da ngaa jënd jàmbi ngënum kaar daal dem tay ne ko ci dëkk ba nangu na aw aajara wala mu yoole ko ni ki da nga koo yóbbu muy liggéey weer kon nangu na aw aslama wala mu salam le ko li sangatin ngir eh, métier jébbale ko li sangatin ngir métier da ngaa jënd jàmbi ngënum xiyaar te diiru xiyaar ba nga daal dem jébbal ko muy jàng tayre wala muy jàng maçon nangu na parce que sa waxa wala mu jeel ko da ngaa jënd jëndum xiyaar daal di ko yóbbu ca xiyaar ca marché ba di ko jaay ah yow comme léegi tàmbali nga jaay kay kon nangu aw janaa wala mu bom ko ni ko da ngaa jënd jàmbi ngënum xiyaar daal di koy xaañ dama loxo bi wala nga def yu mel noonu nangu nga fayal kenn taamale dem tey na jinaa yow aw nasara wala mu xool alfal jëdi jëppay ma maanaam ngir jublu bànneexu ci jëréer kooku nag su boobaa nangu nga fayal aw xaraba wala mu wal daabatul daaba aw wada jaa wala mu xotti suuf la ni ki fas xam nga tànk yi day am ay jàngoro da nga ko jënd ngeen mu xiyaar daal di tàmbali di xotti jàngoro ji ak a dindi ak a faj nangu nga fayal waaye laa ngeen jërada laa da nga day waxuma laa du doon desu ko compté muy nangu ngeen jërada dem raf leen jaay suñ ab jëréer loolu duñ ko compté muy nangu de ndax day seet am na ay bëndéer waxu moom loolu yi ñu nangu la nag ci mustari raddun ak dalala minal bàyyi ci bàyyi bi maanaam mboolem yi ñu tudd ni bu ko mustari defee nangu na ci njaayum xeer mi bu ko bàyyi defee delloo na ñu ne faaw mu ne ijaab nga rey yoola de su ma lay jaay sama jaam bi njaayum xeer dem nag yóbbu ko ci dëkk ba muy liggéey weer lu tax nag ñu ne banaa ndax mooy li- li ma ci jublu mooy jaam bi bañ a taxawaal walaa yoqubal deful nangu min hu teka xeer ga nekk ci loxoom loolu ngay wax min hu teka xeer ga nekk ci loxoom moo xam bàyyi ula wala mustari du ñu nangu ci moom ba mu ne ànd woon a kon ixtaara tànn na nangu aw radda wala delloo ba duhoo gannaaw diir ba de bu diir ba xasee jàll ah dootuñu dootuñu nangu nga ne nangu nangu naa tànn nangu woon naa tànn wala nangu woon naa delloo ilaa béynte nga ciy seede fokk da ngay am ay seede yu ni ah man kat nangu woon naa ba diir ba jeexee taxawal ay seede ni gars yi njaay li ma doon jaay njaayum caar wéyal naa wala delloo naa da nga ko wuti seede wala bay mu sunu jéegéen jaay aji jënd maanaam aji jënd ji duñu nangu maanaam ci biiru xiyaar bi muy jaay silaa ci kooku nanguwuñ ko ba tey fa in faalan dem def na ko nag yow da ngaa jënd silaa njëndum xiyaar te biiru xiyaar da nga daal di dem jaay ko sa jàmm yàlla ndax yu sabako def na ko dëggal ba mu ne anoona comme ixtaara tànn na dégg nga de da nga ba mu ne man kay an ixtaara tànn na ak wéel ndax def na ko dëggal bu ne tànn na ak wéel moo tax mu jaay nga ne man damaa wéel li ma doon jënd njëndum xiyaar moo tax ma jaay ndax def na ko nangu ak nag ga bi yéen ñu am nañ njëriñ aw li def daa wala ñen la borom ci laata naqdu ak firim xëlaani am na ci ñaari wax nga ne man taxala tofoot na njaayum xiyaar li sayi di mukaatab bi ñeen sama mukaatab xaja sama xam ne lott na dellu si ngàll ba da ngaa am sa mukaatab mu doon jaay silaam njaayum xiyaar mu lott dellu si njaay ma taxu na ñëw ci sa loxo yaa moom wéel yaa moom delloo nga taxu na njaayum xiyaar li xeri min ñeel aju fañu ah sa koo xam ne teg na day noo ay borom dégg nga de nit ki dalaa aneel alal alal joo xam ne teg na alalam lépp doon jaay silaam njaayum xiyaar dégg nga de su boobaa njaayum xiyaar ma taxu na ñëw ci sa loxo yaay wéel yaa moom wéel ak delloo wala kalaama déet wax nag di waar si ñeel aji doon foofu même bu waaja deewoon ay donoom saña suñ sa njaay ma dara yow mi nga xam ne yow la aneel alal di fekk say bor loola yow yaa am wéel ak delloo ñu ne fa amuñ ilaa yàqu ndere boo jàpp na ko dimaa lii ci alalam dolo ba nag moom yoon may na su fekkee waa ji da doon jaay njaayum xiyaar ah léegi moom ci biir biiru xiyaar bi kilifaam dee ki ko war a doon yow mi war a doon mën ngaa mën nga koo jël ci sa alal bu la neexee nga fay waaw waaw nga ne wan wan nga ne war dana ko sa njaayum xiyaar li waar si ñoon aju doon maanaam tey ji seen bàyyi doon jaay njaayum xiyaar dégg nga de su boobaa bu njëndum xiyaar da doon jënd ci laa njëndum xiyaar far faatu léegi la neexee nga ni njaay ma toxu na njënd lam doon jënd toxu na ñëw ca doona ya wala xiyaas lay xiyaas nag radul jëm yi mooy delloo ñëpp ina dañ leen delloo la baadum nga misee bu fekkee seen bàyyi da doon jënd ci laa si njëndum xiyaar yàlla dogal mu faat lay xiyaas mooy ne bu ñee bu ñeenee delloo nañu jëndatuñu la ñëpp delloo wala ci saan lay li ci saan ak suñu mujj si mooy jàpp aji wéel ak jami ak lépp waaye ku ni damay wéel njënd mi na nga jënd lépp bul jënd lenn mu ne waa jàmm yàlla war sul bàyyi doonay bàyyi ndax kasaalika dañ koy def ne ci doonay musal yi te kon da nga naan xiyaas ak litisaan dina leen tabbi te kon bu fekkee seen bàyyi day jaay xiyaas ci njaayum xiyaar ku jëkk cee da doon jënd tey nag seen bàyyi day jaay njaayum xiyaar wëlbatiku faatu ci biir biiru xiyaar bi suñ ne xiyaas ak litisaan dina leen tabbi mooy bu ne bu ñee dañuy jaayetuñu na ñëpp ni jaayetuñu loolu mooy xiyaas suñ ne dañuy loolu mooy xiyaas litisaan ba mooy ku ni damay jaay sama wàll ki ni ki ni jaayul wàllam sañu laa teggi ki ni jaayul wàllam sañu laa teggi maanaam ki ni jaayul moom du sañ a teggi ki ni day jaay wàllam da koy bàyyi mu wéer am moom kay xiyaas rek moo leen tabbi waaye li ci saan sax du leen tabbi dégg nga de saa yu laa ni am na ñaar jëm tan wala wayen juna leen junee leef na aji jaay njaayum xiyaas nasara xool ak sultaanu buur julit maanaam tey da nga doon jaay si si laa njaayum xiyaar far dox ci biiru xiyaar bi bu rey seet ba xam day wéel wala day delloo wala nasara def na muñal almaxumaa ko ñu xamal dégg nga de su ko defee maanaam doona jaay njaayum kaar far xam dañ koy munandiku def na ko munandiku ngay wax wayen taala leen yàgg na nag xam ma fu si xefeef njaay ma nga ne wala mil ko lu ñuy moomeelu lu ñuy jaay njaayum xiyaar leen bàyyi ñeel aji jaay bi maanaam nag diiru xiyaar bi moom ah boo fi jaay sa silaa njaayum xiyaar yaa ko moom lu ko fi dal yow mi ko doon jaay yaay ñàkk wa maa lépp loo xam ne yooxu bu def na ko may min addi ñeel jàmba loxoo ñeel na jàmba lépp lu ñu may jàmb ci diiru xiyaar ji loxoo ñeel na aji moom bi maanaam aji jaay ji lépp lu ñu may jàmb ci diiru xiyaar ji yow mi ko doon jaay yaa ko moom ah ca kanam tuuti dafa xaddam ilaa nisfu ñu ne boo seetee ne maaluhu alalam soo ne ah man kat jaam ak alalam laay seetee su boobaa moom laay jënd kon nag luñ ko fa may mustaree koy moom nga ne wal xalatu xalla ja loxoo ñeel na bàyyi ko ba tey dégg nga de le xalla mooy la fa jàmba liggéey ca biiru xiyaar bi bàyyi ko moom waaw suma tayub lépp loo xam ne janaa bam na ko loxoo ñeel na bàyyi ko maanaam lépp lu fa buñ fa xaañee jàmba luñ ko fa jox ci tey bàyyi koy moom añ ay janaa bam na ko añ na din ab jàmbur bàyyi ko waaye bi xilaas wala dootu naa doom di judd de da ngay jaay xilaa njaayum xiyaar mu jur sa jëru xiyaar ba kooku bu mustari jëndee moom moo maale doom ja de nga ne wa damaanu warlu lu ñuy jaay njaayum xiyaar min hu musibam bàyyi hoo maanaam daal diggante biiru xiyaar bi dama ne la lu ci dal silaasi bàyyi hooy ñàkk nga ne wa ala sa dinat na mustarin aji jënd su fekkee tey yow mustari da ngaa yóbbu silaasi di ko di ko di ko jënd njëndum xiyaar woote ni silaasa sànku na ah kon nag su boobaa da nga jël boo wooteeg sànkom da nga jël ila an yas arandare boo fen ni kasi bu ay kanam su gaa yi ne day fen moom moo ko sànk su boobaa kon kenn dootu la dëggal même boo giñoon ni silaasa dafa réer ndax kon dañuy bàyyoo ko war lu tax nga dem bëgg koo sànk dikk ni réer la kooku nag su boobaa boo giñee sax duñ ko nangu nga ne aw yuqaabu wala ma ne faddu alay ak moom ñu ko tey waaji dalaa jaay ab lam njaayum xeyaar nga yóbbu ko dikk ni wane ni réer na kooku kenn du la dëggal ilaa di bay nit nga ciy seede da ngay ani seede rek wala duñ la dëggal de ndax loolu ma ne na koo sànk dikk ni réer la nga ne wa damina war lot na al mustari aji jënd jë kenn xëy na dem tan lot na al bàyyi aji jaay ja tey nag bu fekkee bàyyi fu moo doon xiyaar mustari faddoog silaasa dikk ni sànku na def na tànnaloo bàyyi alak sol la gën a bari ci njëgg ak xayma dañ ko naan silaasa nga doon jaay xayma jaay njëgg lu ci gën a bari loola la bàyyi muy fay moom la la mustari di fay ndax moo woote ni sànku na ci lu dul ay seede tey daal bu fekkee waa ji dafa yóbbu silaasa woo moom mustari ci biiru xiyaar bi dikk woote ni réer na te amul ay seede dañuy tànnaloo bàyyi fu la gën a bari ci njëgg ak xayma ja mustari fay ko ñu ne faa mun ilaan yeli ko nga boo giñ na su giñee ne fa samanu njëgg dong lay fay su fekkee mustari dafa giñ na wallahi dégg nga de lii nga xam ne dafa sànku ah du sama càggante du sama sabab lu ma sànku ba sàgganu ma ci ñu ne ko fayal njëgg dong mu jëlee ne leen ci fay njëgg dong mu ne ko xiyaar yi ne ko xiyaar yi mustari mustari booba nag bàyyi moo doon xiyaar diir boobu foofu ñuy fay loo mustari te xiyaar yi ne ko xiyaar yi mustari su fekkee mustari dong moo doon xiyaar it yàlla dogal ca biiru xiyaar ba mu wooyee ne si laa ko sànku na na fay njëgg cat nga ne wa ko xëy bëti bàyyi ak lu dama nekk sàddu bàyyihu wal xiyaar tan duum xiyaar ja li xëy yi ñeel na keneen bu fekkee tey maanaam bàyyiwu daa fàddoog silaasa waaye ak sànkom te keneen moo doon dégg nga de xiyaar mooy mustari moo doon xiyaar kon la bàyyihu fay njëgg masalan tey bu fekkee mustari jotoon na laa jox ak njëg yow bàyyihu yaa fàddoog silaasa dikk wooye ni sànku la ñun la joxee njëgu jaabur bi nga joxoon jox boobu yow foofu nga ni ba mu bàyyihu foofu ay tomb la da nga naan ba mu bàyyihu ak ba mu mustari ba mu bàyyi ko benn muy xiyaar wala mustari xiyaar buy xiyaar wala mustari xiyaar benn bom ko ci mooy wala mu bom ko ci tey buy mooy deena ca wala déewu ca buy tey deena ca wala déewu ca ba mu mustari benn muy xiyaar wala bàyyi xiyaar buy xiyaar wala bàyyi xiyaar benn bom ko ci mooy wala mu bom ko ci tey buy mooy deena ca wala déewu ca buy tey deena ca wala déewu ca mu ne wa in janaa dem bom na dégg nga de bàyyiwul aji jaay wala xiyaar tëmbir moom xiyaar jël hoo ñëw na ko mu ngoog am dem ci tey fara dun ak delloo la tey bàyyi moo doon xiyaar bom silaati ci biiru xiyaar bi ñu ne ko kon nag raddun delloo la mooy jaayatu waxata an su ko bomee ci njuumte falil mustari ñeel na aji jënd ja xiyaaru ayib xiyaar ayib ja boobu mustari sañ naa tànn ayib ja su ko neexee mu wéyal noona te du am dara su ko neexee it mu ne banaan nga ne way booba nag silaasa bu jaa sànkuwul wayn telifan dem sànku na ca silaasa in fasaka siri kuna njaay ma fii maa ca ba mu ko teyee wala mu mooy yëpp bu fekkee tey masalan ba ko bàyyi u bomee te diiru xiyaar ja tey silaasa bu jaa sànku njaay na siri mu ne wayn xëy na dem tànn loog na xëy na kooku bàyyi si mooy mustari wa taama def tey bàyyi tey ginaayaw tey mustari moo doon xiyaar bàyyi tey ginaayaw a dem bom silaasa kon fa li mu sëriñ ñeel na aji jënd ja raddu delloo ni man jëndatuma comme bàyyoo ko bam awax jinaay ci wala bokk mu téye te laaj jinaay wa ko bàyyi fu def mu ni bàyyiwu li nga ci yàq fay ma wax boobu yëpp mu ni wayen telifan dem sànku na ca nag tey mu sëriñ moo doon xiyaar bàyyi fu bam ko silaasa sànku damina warlu dégg nga de bàyyi fu lakk sara gën jaa bari dana warlu ñeel mu sëriñ lakk sara gën jaa bari te xëy may silaasa ak njëgg waaw xëy ma si ak njëgg ndax bu fekkee xëy ma ja moo ëpp njëgg kon bàyyi fu loolu lay fay mu ne ween ak xewoon dem dafa juum maanaam bàyyi ko tey moo bam silaat ci njuumte te loxoo ñeel na ko moom mustari ak soo jàppam naak seen muy aji wàññiku awra doo wala mu delloo ko noonu te def noonu su fekkee bàyyiwu ci biiru xiyaar bi dafa bam silaat ci ba mu njuumte kon mustari sañ naa jàpp silaasa ci njuumte ga ànd ak wàññiku ga noonu rek te du am dara wala mu delloo ni jëndatu wax boobu yow mu ne wayen alifak ndem sànq na silaasa bàyyihu da koo bam ci njuumte yàlla dogal mu sànq ca biiru xiyaar bi ten fasaka siri ku ne njaay ma ba tey wax foofu la ba mu bàyyihu yëpp mu ne wayen jënaa ndeem bam na mustarin aji jënd wal xiyaar tandir moom xiyaar jënd loo ñëw na ko ah walam gis silaaka sànq ko maanaam mustari tey moo bam silaati ci biiru xiyaar bi waaye silaatu sànkuwul xam dan ci tey foofu moom ba mu mustari la doon ak nangu la kon ñu ne ko nangu fayal waxataan su dee njuumte la ko bam nag fa loxoo ñëw na ko radduhu ak delloom wama naqasa ànd ak la ca wàññi ko waaye buy delloo silaasa la ca boole la ca wàññi ko ndax boobu yow nga ne wéyal ab la faandeem sànq na ko ca nga xam ne nag tey da koo bom dégg nga de ci ci tey ba noppi sànq ko dami ne mu war na sama na njëgg dégg nga de kon mustari dana war njëgg maanaam da ko bom ci njuumte dami ne mu war na sama na njëgg nga ne in xëy na dem tànn loof na xëyroo keneen yam bàyyi ma doon xiyaar te mustari bom ko ci njuumte ñu ne ko fayal njëgg wajana dégg nga de wa nga ne wayen ko leen dem tànn loof na wax boobu dafa yem foofu ci dami ne sama na nga ne wayen ko leen dem tànn loof na xayruhoo ku dul mustari tey bàyyi moo doon xiyaar wa janaa ba mustari hamdan ci tey aw xata an wala ci njuumte te fekk bàyyi woo doon xiyaar fa lahoo ñel na mustari ak su jinaayatin jàpp jinaaya wa noona awi samani wala njëgg fa lahoo ñel na bàyyi woo déedéet fa lahoo ñel da nga naan wa in koy rendem tan lop na kayruhoo kudul mustari te mooy bàyyi woo doon xiyaar wa janaa ba mustari silaasa hamdan ci tey su boobaa aw xata an wala ci njuumte fa lahoo ñel na bàyyi ak su jinaayatin jàpp jinaaya wa awi samani wala mu laaj njëgg lu ko ci neex def fayin tali fan dem sala sànq na dami nag war a lakk sërgën jàbbay wax boobu yëpp nga ne way ni tran dem jënd na aada soo bay ni kenn ñaari malaanam mu xabaroo maa mu ngëm leen li yaxtaare nga na tànn kenn ci ñoom da ngaa dikk ci commerçant bi mu jox la ñaari piis ñu la tànnal kenn fekk da nga de fa daa mu wooye diyaaw maa sànq seen ñoom ñaar dami na mu war waaye den kenn di saman ci njëg faqat walif ma ca def ndax moo la ca wóolu woon moo tax ma réer doo ko fay mu ne walaw saala doonte laajoon na fiq baaji maa ci ngëbal seen ñoom ñaar kon it mel na ma nga mu sànq doo ko fay aw diyaaw waaye boobu la mu wooye sànq kenn dami na mu war nit foo bu dikkee ni mel na ma réer na dami na mu war lu nit foo genn wàll ga ma réer dina war lu genn wàll ga genn wàll ga te def amin de wala hoo ñel na ko ixtiyaarul baaqi tànn ma fa def na kon dañ laa joxoon ñaari malaan nga woote ni mel na ma réer na ah yoon may na la léegi mel na ma ma réer da nga fay nit ba waaye li ci def sañ nga koo tànn mu di leen releel ci maanaam kasaay bi nekk aji laaj mu di releel ci masala mi mu ne kasaay bi nekk aji laaj dégg nga de dina maanaam ci mut la ko demande ci warlu bi rek ngay wax mu di leen releel ci warlu bi kasaay bi nekk aji laaj dinaaran ab dinaar fay pa joxe ko salaatan ñetti dinaar tey da ngay laaj benn waaye ab dinaar moo xam ne dala koy faye benn dala koy lebal wala mu dala ko fay mu jox la ñetti dinaar li yaxtaar ngeen tànn te saama mu tudd talaf is na ni tànk ñaar nga dem ba nga ne da ngay tànn ba nga des nga ne ñaari dinaar yi réer na kon nag fa yakkoonu dana nekk sarikan di bokkaale ci boobu gisul ñaari dinaar yi nga xam ne dangaa wooye ni sànq nañu ñoom ñaari dinaar yooya dégg nga de bu ko defee benn bu mucc ba yaa moom sulus ba waaye ñaari dinaar yi sànq benn bu ci ne da nga ca fay sulus loolu laa bëgg a wax fa yakkoonu sarikan di bokkaale benn bu ne da nga ca fay sulus boobu fi nekk nag am nga ca sulus ñene wayen ka an doon nekk na li yaxtaarahumaa ngeen a tànn ñaari malaan ya ma delluwaat ca kaw ba tey dangaa jëloon ñaari malaan ya pour bëgg leen a tànn xam nga da nga ne woon dangaa jël aadasoo bay ni wax xam la li yaxtaara ngeen a tànn ca mel tey nag wayen tànn nekk li yaxtaaruhumaa ngeen a tànn ñoom ñaar parce que law maa cet ñoom ñaar ma dil nañu jaay la wala si maa war nañ ko ñoom ñaar di mu dil mu dil ci biir biir waxumaa ci biir biir waxumaa ñoom ñaar dégg yi ah bu dee xiyaar de jeexee nee naa la si delloo si woo ñaari malaan yëpp war na la yow mu sëriñ wa fi li soo min bu dee njaayum laasim li ahadi ma ñeel kenn ñoom ñaar la yóbboo woon ñaari malaan yi da ngaa jënd mel ci ñaari malaan yi njaayum laasim yóbbu kon dikk wooyee ni ñaar yëpp réer na kon nag su boobaa yel sa moo dana ko war nit ki nit ñu ko leen ci képp malaan nit ne dañ ko fay am nit sëriñ bi ne la wa fi lixtiyaar yi ni ci bu dee njaayum lixtiyaar nag laa yel sa moo du war ko sëriñ dara comme njaayum kaar la woon te nga woote ni sànq la nga ne war da delloof na di adin masuud ñàkk la ñu sàkk si loo xam nekk na ca xaradun xemante ah war da delloof na njaay bi adamil masuud ñàkk lañu sàtt fii loo xam ne nekk na ci xarat mu xamante misaalam te say dañ ne ci sàtt jeeg maanaam boo sàttee ni ndaw si da ngaa fekk muy jeeg ah da nga nit jeeg laa bëgg dikk fekk mu def xëy li yem ni ngir ngi gi ñoon fay gi daam te ko bi keneen ma xëy sañ ngaa delloo ndax loolu xemanteef la ndax da ngaa ginee ne dootuma laal jàng dikk sàtt jeeg waa ji jaay la ko nga ti biñu si da nga wayen bi mën a daa tam doon ci jéebaane la waa ji naan koy dégg nga de koy jënd jeeg koy jënd jeeg dégg nga de nga daal di koy jënd wala mu naan koy jënd jodeel bu mën a togg mi ngi nii nga jënd ko dikk fekk muy jànq te dangaa jineen ni dootuma laal jànq kon sañ jàbbel la waaye laa yin tafaa waxuma ndeen dàqu na ah lu ñu jublu la laa yin tafaa waxuma ndeen dàqu na lu ñu jublu la ndax dama ne woon rudda bi adamee na soo fii xaradu laa yin tafaa waxuma ndeen dàqu na xememteef la loo xam ne li nga sàtt amul benn xememteef bu tene ah kon nag su boobaa loola bu tax nga delloo nekk da nga ne man jaam boo xam ni ak ummi yu laa bëgg dégg nga de jaam boo xam ni ummi yu laa bëgg dikk fekk jaam ba mën a bind ah dara dara du la ci kon it su boobaa doo delloo wala nga ni man jeeg laa bëgg dikk fekk dégg nga de fekk muy jànq yu demee noonu te giñoo woon dara waru nga ni wa dana war delloo di di arit boo déggee ma ne laan tafaaxuma dem dàqu na jubluwaay ba jébéer da nga ne man jébéeru jeeg laa bëgg dikk fekk muy jànq doo delloo wala nga ne jébe jàmbu jàngu laa bëgg dikk fekk mu mën a jàng doo delloo kële ngiñ laa taxoon ñu ni la da nga delloo ndax da ngaa giñoon ni dootuma laal jànq waaye comme ngiñ amuti rek sàtt jeeg fekk muy jànq dara waru ci sàtt jàmbu jàngu fekk mu mën a jàng dara waru ci du war a delloo nga ne ma def nga delloo lu ñuy jaay dinaa ci loo xam ne alxaaratu lay aada salaamatu mooy mucc mi ni ci moom ka awara ni ki pat da ngaa jënd jaam fekk mu pat sañ ngaa delloo waqatil ak dox dégg nga de jëkki tey da ngaa jënd jaam fekk dégg nga de ñu dagg leen ni ab baaraam dagg ci sañ ngaa delloo waqisaayil ak tax te mooy da ngaa jënd jaam bu góor fekk ñu kàtt ko du góor sañ ngaa delloo wasaatil ak jorngal daam bu jigéen boo xam ne dafa am benn jorngal dañ ngaa delloo wara ci ay dëkk Ibrahima ak yeex a yëkkati yeex a yeexum bërëgum laab la maanaam tey da ngaa jënd jaam bu jigéen daal mbërëgum laab li ma yeex lool kon su boobaa sañ ngaa delloo sëriñ bi nee na waxasarin ak liggéey càmmooy da ngaa jënd jaam boo xam ne da ngaa fekk muy liggéey càmmooy da nga def sañ ngaa delloo wa sinan ak njaaloo da ngaa jënd jaam fekk muy njaaloo sañ ngaa delloo wa turbin ak naan dana war a delloo ba baxrin xeeñu jëniñ dana war a delloo am na ñu ci yéegal xeeñu fay wa saxaarin sëriñ bi nee na wasaarin ak galang ñàkk kawar dana war a delloo wasiyaati si min doliku bëñ te mooy jàngar dana war a delloo wa sufrin ak tobbu bët maanaam sufrin mooy lu am ci biir bët bi aw yàq dana war a delloo dana wax wa xujarin ak liñ naan dégg nga de maanaam giir dana war a delloo wa bujarin ak paltoor jumbux bu rëy dana war a delloo wa walidayni ak amuk ñaari way jur ci réew ma ndax jaam bi bu fekkee ne dafa ay way juróom dañ fay nekk day daw di fa dem kooku dana war a delloo aw waladin wala amuk doom jaam boo xam ne dafa am doom ci réew mi dégg nga de su boobaa dana war a delloo laa jaddin waxuma nekkuk maam na jaam bi nga jënd maama ma ngi fi taxul du war a delloo wala xarit bi jóge ni mbokk am mbokkam nekk fi du war a delloo wa gisaani addin ak ngaan ak bàyyi du war a delloo jaam bi dëgg la ba bàyyam nekkoon na du koo xam ne daal dañu woon am na ngaana dégg nga de kooku ba tey def na ci delloo jaam kooku moom da koo ëtti ca delloo ga wala du raqi ko bi gisaani addin dégg nga de dégg nga aw junóo nii wala ndofam di kat ci jikko dana war a delloo waaye laa di ma si jinne ni xuma laalu jinne jinne mas na ko laal rek waaye yàggu ci kooku du war a delloo wasu ko ci nañu rotul ñaari bëñ moom itam du dana war a delloo mu asit ko ca dee war a delloo wasu ko ci nañu dana war a delloo rotul ñaari bëñ ndax kooku jàll la wasi daa yeeti ni ci jongama ba waaye du ci benn bëñ jong dana war a delloo wasay bin bi jaaw baa boo xam nekk na ci jongama fakkat walif dégg nga de ku ñaaw jongama it bi jaaw ayib la ci dana war a delloo wayen xala doonte néewoon na bi jaaw ba wa jihoo ji ak fara dégg nga de maanaam farawli ko kawar gu farawli ko dana war a delloo wa soo ba ci ngelawgam dana war a delloo wa kaw nii nekkam war a def ci nan di dooni njaaloo da ngaa jënd jaam bi fekk muy doon njaaloo dana war a delloo kawar gu xonq mooy ngëlëm dana war a delloo wala wala waxtaan doonte feseñ la woon bu dee doon njaaloo dana war a delloo ba boolin ak saw ci firaatin ci lal ci waxtin ci waxtu yuñ ko woo xam def na ko fakk in sabata ndem sax na sax ma saw ma indal bàyyi fas aji jaay ji tey jaam bi da nga koo jënd muy magum jëmm di saw lal dana war a delloo bu wóore ni daana saw sa bàyyiwu wa ilaa ndem dawul saw sa bàyyiwu kon nag ala fa na jiñ dégg nga de moom bàyyiwu ni ah fii de moom daawu fi saw su boobaa ñu xam ne natt la yéen ko keneen dem taxaleef na ko indi kay di fas ko moom ndeen dañoo dem ba ci muskëri ñu ni jàmbaa nga fay saw te bàyyi u moom xamu ko woon ci saw su boobaa nag giñi rek bu ko giñee rek ñu bàyyi ko wataanu si abdin maanaam bu giñee rek moom ñu ni ko kon nag mus nattu muskëri la wataanu si abdin nee na ak jigéen jigéen lu jàmbu góor dana war a delloo da ngaa jënd jàmbu góor mu jigéen jigéen lu delloo wa foolati amatin ak kuy kuy lu jëbee dana war a delloo istaarat boo xam ne siiw na maanaam jàmbu jigéen buy góor góor dana war a delloo mu ne waa jàmm yàlla foo moom góor góor jigéen jigéen lu jàmbu góor ak góor góor lu jàmbu jigéen ndax alfiilu mooy jëf jëf su dee jëf jaam mooy jaam bu góor buy góor jigéen ak jaam bu jigéen buy këppante ay sa boobu wala mooy nuru nuru lu ga nii rek mooy ca wax ja ak yëngatu ga lool la waaye du jéggi ni jëf saa yu laa ni am na ñaar jënt waxala ci sakkarin ak aatu góor dangaa jënd jaam bu góor mu def ah dana war a delloo wa un saamu wala din ak ñàkk toniku jigéen maanaam jigéen joo xam ne dañ koo deful loolu ñuy defal jigéen ci maanaam affaire li ñu naan njongal ak yooyu kooku dana war a delloo aw tawri iqaamati wala yàgguk sax jaam boo xam ne dafa yàgg li mu sax ci réew ma dana war a delloo diggante aw tawri iqaam wala yàgguk sax diggante julit ña kooku moom itam dana war a delloo sëriñ bi nee na maanaam boo déggee rek yàgguk sax diggante julit ña loolu nekk seen moo nag dana war a delloo nga ne waxati ne ma loolu ma ak ñàkk a jongug way bigg seen ki la jaay jaam bi dañoo ñëw indi jaam bi te ñoom ñu koy jaay ñoom jonguñu ah boo ko jëndee ba noppi gis ni ñoom jonguñu te jaam bi jong dana war a mën ngaa delloo ndax day jamtalu ni dégg nga de ñoom moomuñu ko sëriñ bi nee na ka bay in ni ki njaay bi xudatin ci xuda da nga naan ka bay in ni ki njaay bi xudatin ci xuda dana maa lépp loo xam ne israwu jënd na ko bi baraatin ci dental yow da ngaa jënd ci dental wëlbati ko dem jaay ci xuda loolu dana war a delloo sëriñ bi nee na wa karaxatin ak lu dama nekk effort parce que koo xam ne da nga koo jënd tànkee di métti dana war a delloo wa xasarin ak tërëf maanaam fas yi day fakk talu buy dox dina war a delloo waxarin ak xoox nga teg ko saret mu bañ dina war a delloo waa demi am leen ak ñàkk yem mu taadin gudi guñu baaxoo dina war a delloo waaye laa dëpp nu ko ma jalwañ eh koo xam ne da ngay liggéeyal nday joor ak càmmooy du war a delloo bu siyoo ba ci njeeg du war a delloo jënd jëbéer bi defee ne jànq la tëdde ko amul ndaw du war a delloo ilaa fi mën na de koo xam ne laay tuddeeful daj yi misloo ay kemam su fekkee nag gone gu ndaw la rek bu toll ci juróom-ñeenti at fukki at nga xam ne ay moroomam waru ñoo xam sëy kooku boo ko jëndee fekk muy jeeg sañ ngaa delloo waa dama ko si biir xubulin ak ñàkk a ñaaw kot xubul du war a delloo maanaam ndaw si xubulu fayu kaayam taxul mu da nga de yaatu xat na waaye ñaawul agul ci ñaaw xat gu ëpp kooku du war a delloo bal kooku nañu melokaanu ñu sant la wa kaw ne ay nekkul ndaw sax sa laa am dég ñattaar maanaam bokk na ci bu fekkee da nga de déeful delloo jaam ci ñàkk jekki waay yu rëy da nga de maanaam daal bu fekkee tey ndaw si da nga de du du ayib maanaam ñàkk jekki waay yu rëy du war du ayib wa kayin ñaas la nekk boo xam ne wàññiwul tuuma du war a delloo wa tuumatin tuumaal bi sarikatin ci sàcc fu bisa goo xam ne si jëfoon na ko faa ci moom suma saa toog sëñ brato benn ulam du war a delloo nga ni wama lépp loo xam ne laayu talawu di su ko yër alayhi ci moom maanaam jaan bi tuumaaloo nañ ko ci sàcc ba tëj ko ci waaye gannaaw ba xam nañ ñu sàccul kooku kat boo ko jëndee loolu boobu tuuma set du war a delloo nga ni wama lépp loo xam ne laayu talawu deful yër alayhi ci moom ilaa bi taxay ilaa bi taxay nga tik sotte ko loolu du war a delloo ko soosin xasa bi ni ko walu bant bant bi boo ko jëndee xam nga bala ngaa xam wa da nga de seeg jëfandikoo woo ko doo xam am na wala mbéet boo ko jëndee fekk mu am ay gunóor ca biir du war a delloo wala te boobaa ba wala xëymati def xëyma ci kanam tuuti yow mu sëri kenn du la delloo xëyma ji jënd nga bant bi daal defe ni amul ay wal te fekk am nag wal kele ko jaay xamul wal gi kooku doo delloo wa jaw sin ak yàqu biir saal li ci dangaa jënd guro boo xaree mu sànkar waroo delloo wala xëymata def xëyma di li ñeel mustari wa mu rëqisaayin ak wefu xaal xaal yoo xam ne daal moom dañoo baaxoo neex nga jënd yàlla dogal am ca bu wex doo delloo wala xëymata doo am xëy wala war delloo na albayhu albaydu nen maanaam nen moom boo ko jëndee fekk mu am ayib sañ ngaa delloo ndax kala koy jaay xam na am na ayib li wa ayibin ak ayib xala joo xam ne ñëw na bi daarin ci kër ma ca du war a delloo boo jëndee kër fekk ci ayib ju néew du war a delloo wa fi qadrin ci kenn ayib ju néew jooju ndax ayib ju néew jooju dañ koy compter muy sulus wala ñàkk doon sulus dégg nga de saret am nañ ci déng-déng ndax téeméer néew na ak yu demee noonu daal nga ni war a jaxa delloot na su boobaa nag ca ayib bi xiimati ca xayma ayib ju néew jooja waaw ci jënd kër gi fekk nag maanaam mu am ayib ju néew dana ca dellu da nga de ci xayma lu dal na ayib ji moom danañ ko ko jox te sax idaari ni ci xaru miir mooy ayib ji néew lam yoqof boo xam ne régaleeful alayaa ca miir ba minu ci moom da nga de lam yoqof régaleeful alayaa ca kër ga minu ci toj toj booba nga xam ne ragaluñu mu màbb daanu kooku dara waru ci ah ilaa ñekkoondre boo nekk na toj toj ba waa ji ataa di jàkkaarloo buntu kër ga nga xam ne boo duggee ci kër gi rek jàkkaarloo xar-xar bi kooku nag ayib la da nga de sëriñ bi nee na aw daqat i man faati wala doogu njëriñ tamit birim naka xoramu teen bi maari alaawati ci barab bu baaxoo neex barab bu baaxoo neex nga gas sa teen ci jënd kër gi fekk fa teen nga gas ko mu la xat kooku dana war a delloo wayen xaarande wax na jëbeer xanaa man ma solutum ku ñu jural doom laa lam taxarum du aram de da ngay jaay ab jëbeer jëbeer bi ne ah si may jaay am naa man doom te kon umu warat laa taxul mu aram waaye laajte noonu li fi nekk ayibun ayib la de ba tax na in rajo ndeem nangu ne bii ci moom bayana na ko biral na bis boo nangoo ba di ko jaayaat na nga yow mu sëri na nga ne ah jëbeer bi ne woon na am na doom te ki na ko jaayoon de te kon kii la umu warat la te kon waa jële ko amaloon doom bis bu dee day gore nga ni wa tasiratul ayawaani su seen dundat wax boobu yam ko wa tasiratul ayawaani su seen dundat te sàtt ni ki sàtt barek soow la maanaam boo ne dundat mi da ngaa bàyyi yenaat bi ba mu jajj nga dem di ko jaay ngir bëgg ni am na soow moo nga ni dina am dafay am soow ñooyam ba tax na bu ko waaji rek circule mu am soow sañ naa delloo te tax lii ti soow bi addin ni ki takkal mbalaanum jaam bi mi daa din ci daa ngir bëgg ñu ni jaam bi mën naa jàng ku ko jënd circule mu mën a jàng su ko neexee mu delloo fasaabat loolu yura duhoo la ñuy delloo maanaam ndundat loolee nga jaayoon bi saa yin ànd ak saa min xaalibil xuuti ci la nag sa dundut waaw waaw maanaam say booratee ndundat li muy nag wi wala gëleen fekk ko soow mi nga bëggoon mu am ko yow mu sëri nga delloo ko natt saa yi la nag sa dund ba boole yóbbaat waxaruma araam na ne radu la ba ni delloo soow ma ndax noonu la ko yonente bi attee dégg nga de waaw nee na na nga delloo saa ànd ak ñam rek la xadis ba wax laayil alima laa nag du delloo ngay wax in alimaha ndeem xam na ko moom aji jënd ja dégg nga de mu saraatan muy lu ñu sufeel su fekkee bi ngay jënd ah yow wóor na la ne lii ngay jënd dañ koo sufeel doo sañ a delloo xalam tu sa wala sufee sufeelee su ko kenn sufeelu ko xanaa yow wasan na moo jot mu sëri kasarata labani barik soow tax mu dem jënd ah su boobaa dara duñ ko delloo dara ilaan ko si ñu ne faaw mu ne ilaan ko si na dara boo jubloog na soow ma wastu reet te jëndeet ko waxtu ilaa daa ci waxtu bari soowam su fekkee nag ba nga koy jënd yow soow dong nga jublu jënd ko ci waxtu mu baree soow nga rat amul soow kooku nag su boobaa wakkate mo wati nëbboon ko moom bàyyiwu nëbboon la ñàkk a bari soom kon su boobaa sañ ngaa delloo wala dégg nga de nga ne wala deful delloo saa bi xëyri ay bi société ci lu dul ay bi sufeel alla sant wax ji gën a rafet saa jooju ñu ne boor a tee lii nga xam ne moom nga jëndoon ngir soow sa fekkoo mu mel na ma la gëlaloon nga boole koog saa jeneen ay jurul sufeel booy delloo ndundat la doo ci boole saax maanaam boo jëndoon tey aw nag ratt ko ba noppi gis ni béjjën bi dafa damm booy delloo doo delloo dara boole doo doo ca boole ñam àlla seen sax jëma wa taada li mut na saaya bi taada daa ci li mu rat ya alal muxtaar wax bu mu taalif imaam loxo mi mu jël ko ci mu tëba wala jeyt mooy wax jëgëngal nga fi im yunus maanaam boo ko rattee ñetti yoon delloo ñetti saax boo ko rattee ñaari yoon delloo ñaari saax ànd ak moom wa in uli bat ndem rattes na saa sa nga tur ñetteel kon mu set fa in asra ndem am na lixtiyaaru tànn ga bi saa nit tur ñaareel ga foofu moom rattu ñetteel riddal ak nangu la da ngaa ratt ñetti yoon te ba nga rattee rattu ñaareel la nga bëggoon am nga ko rattu ñetteel ak nangu la wa fil mawaas it nekk na cëri bu ñu wax mawaas loxoo ñeel na mustari saalika googu la delloo gannaaw rattu ñetteel ñu ne ah ndax kon wuute dafa ñëw mu ne wa fi kam ni nit ci nekk waxi mawaas jooju xilaafan di wuuteeg wax di jëkk jële te kon bu ñu waxi mawaas jooju dégg nga de dafa wuuteeg wax ja nekk ca mu du wànn mooy mu du wànn moom dafa ni boo rattee rattu ñaareel am la nga bëggoon boo rattee rattu ñetteel da ngaa nangu mawaas ni sa ngaa rattu ñetteel ba noppi delloo kon mu di wuute am moom kay duñ ko du wuute ab dëppoo la dégg nga de ba ma waas ne sañ ngaa delloo gannaaw rattu ñetteel da ngaa amul woon la la gënal ci rattu ñaareel ga taawi laa ni am nañ ci ñaari jëm mais wa mën a tere na min ci delloo ngay wax da bayu aakilim jaayim aakim maanaam aakim lépp lu mu jaayim aakim raqi xen jaam aakim bu la jaayee jaam boo ci gisee ay bit doo ko delloo ci kanam tuuti la xatam wa waaris ak aji doon mu jaayim raqan jaam faqat walis dégg nga de ku dul aakim ak waaris ku dul aakim ak waaris bu la jaayee boo ca fekkee ay sañ ngaa delloo waaye aakim ak waaris bu ñu la jaayee jaam ah ki doon moom xam nga ni moom yoonam nekku ci aakim it moom dafay day jaay ay jaam rek noonu yoo xam ne da koy jëlee ci nit kooku boo ca fekkee ay doo delloo fekk bàyyi na koo xam ne biral na ne ko àndoon na ko moom kat jaam bi ursum dono la ki lay jaay jaam bi danga ne sama bàyyi dem bàyyi ko fi kooku xamul ci jaam bi ayib bu la ko jaayee boo ci gisee ayib doo delloo wa xoy rek àndof na mu sëriñ aji jënd sànn hoo moo xam ne jortoon na dégg nga de bàyyi xayrahuma muy kudul aakim ak waaris yow ki lay jaay xamoo woon ni aakim la xamoo ni waaris la nga jënd ci moom ba noppi ñu ne la ah yow de ki la jaay jaam bi xaakim la waaris su boobaa yoon may na la nag nga tànn bu la neexee nga delloo ndax comme réeré gi nga ko réeré moo tax nga ne wa tere na delloo tabari xëy ma dañ ëlu kudul ñoom ñaar fii dégg nga de ca njaay ma wa tabari xëy ma dañ ëlu kudul ñoom ñaar fii ca njaay ma ni maa ci lépp loo xam ne la yoonam xamul maanaam koo xam ne bàyyi hu xamul ayib ca la mu lay jaay kooku bu la jaayee ne la ah xaw ma ci ayib dina bëgg di feeñ boo ko gisee ayib dootoo dellu si in taarak dem yàgg na iqaamatu hoo saxuk lañ doon jaay dégg nga de nga xam ne saxuk bu dee jaama sax na ci kanam bàyyi ulu yàgg jaam ba sax na fa lu yàgg mun na xaw ma ci ayib dina bëgg di feeñ kon dañ talu na soo ko gisee ayib doo dellu si way sa alima hoo ndeem bàyyi xam na ayib bi la muy jaay ah bayana na ko biral ni ko ànd hoo na ko moom ayib bii nekk na ci jaam bi dégg nga de ndeem ayib bi nëbb la wasa foo te mu melal ko ko waaw waaw ne ko am na ayib sàngam melal ko ko bu dee sàcc dégg nga de aw ala wala moon ko loo ñool ko bu dee ayib di feeña ni ci patak laaj wala mi ñu bu mu ko si bëmbastal rekk yem nga ne waxtaan na delloo sawaaloo dañu ko ayib maanaam da nga da ngaa jënd jaam bi a yàlla dogal nga di ko bëgg a delloo si ayib ja dañ su boobaa kon dootoo ko delloo si ilaa mustamilu ayib nga di ayib ji di ak jamtulu dellu si dégg nga de ni ki jaam bu doon saw lal xam nga bu sedd bi ñëwee dana saw bu tàngoor bi ñëwee saw ma dañ du la tee bu la neexee dellu si nga ne waxi sawaali mi ci dañu ayib bi mawti soo jëp ci deewu jabar xam nga dañu ne jaam takk jabar ayib la ci moom soo jëndee jaam fekk mu takk jabar bu la neexee nga delloo ndax ayib la ndax bu fekkee tey nag jabar ja dafa dee watala xaa wala mu fase ndaw ndax kon ayib ja dañ na tew moom al mu taawil mooy lu ñu taawil dégg nga de loolu ñu taawil fa mu dawan na wala soluti mooy wax ci gën a rafet aw wala moom kay ayib ja dana dañ bi ma ca deega fàkkat wala fase ga ndax bu ko fasee mën na koo fay li tew moom waaw laxtaru moo gën a tënk indi mu jël ko ci wuta ba aw laa wala moom kay ayib ja sax du dañ aw laa wala moom kay ayib ja du dañ ci deeg fase yëpp ndax jaam bu xasee takk jabar fokk mu wuti waat jabar axwaal am na ci wax wa tere na delloo maa lépp loo xam ne yedul dina tekkale alari daa ci nangu lépp loo xam ne boo ko defee dina tekkale nangu su boobaa kon loolu boo ko defee ni ki da ngaa jënd daaba ji daal di koy wax wala nga liggéeyloo ko yu demee noonu nangu nga sëriñ bi nee na ilaa man dara loo xam ne laay naq diwaañu xayma ka sukkunaa daal di ni ki dëkk kër dëkk kër nag nga jënd kër dëkk ko tuuti rek gis ci ayib kooku nag duñ teg seen nangu waaye wa alafa bi nit nag in sàkk sa ndeen noppi na bilaaw suñu ci lu ngant ci kër yow mi ci luy toll ci bis maanaam daal da nga ko gannaaw ba nga gisee ayib bi ci la nga jëndoon jënd nga filaate gis ci ayib noppi luy toll ci bis delloo ci ko ñu wax la nga ne démb damaa amoon ngant loolu def na ko noonu waaye laaka musaafir waxuma musaafir itara moo xam ne loru na laxaa ñeel war daaba ja musaafir mu jënd daaba yóbbu ko ba sori ak moom gis ci ayib di ko delloo si war ga mu ca war duñ tax ñu ni ko dangaa nangu war gi nga war ak nangu la déedéet aw kansara wala gàntal xaw duhaa wamat daaba ja li haadiri ñeel aji teew nga xam ne daaba ji yow mi ko wamat ci dëkk bi nga ko nga ko yóbbu ba nga ci gisee ayib nga di ko delloo si xam mënoo ko wamat tax nga war ko war googu tëgtalewul nangu fayin xaaba ndeem fàdd na bàyyi woo aji jaayam ak adana ko seer na dégg nga de fayin alima ndeem xam na fayin aji si ndeem lott na maanaam dangaa delloo si waajo dalaa jaay filaa nga yóbbu ko muy fas wala jaam nga dikk fekkoo fa kala ko jaayoon nga ni dafa am ayib seedeel ni li ma jaayoon na ngi ni daa am ayib moo tax ma dellu si xëy na aja sa ndeem lott la xala mën a xamal bu fekkee da ngaa lott da nga de lott ga mooy lan mooy lott ci delloo si ga maanaam mën a goo delloo si léegi xala mën a xamal alkaadi xaadi ni ko ah diw de jaayoon na ma si laa fekk naa ci ayib waaye dama koo mën a gën a indi fasalaw ma mu yëndiku ci bay dul xëy ba ci fàddu guddi aji sori indi jën leen yaakaar si na xudóomu ak rubichel mun a kaan lam yoonam nekki leen bu boobaa nag xaalis dina mu ñëw di ko waaje tukki ba mu ñëw mu nga delloo si ko la nga la nga jëndoon ci moom mun a kaan lam yoonam nekk neen xaweekul mao doo barab ba mu fàddu kon it ba tey bu ñu xamul barab ba mu fàddu des na ko mu ñëw di ko da nga def alal say ci wax di gën a métti wa fiyaa nekk na ca mu doon ay den ba tey na fi solo mi dàq mu ñëw di ko am na ñu ni déedéet bugg ko mu ñëw di ko rek yow daal boo dikkee wax ko xaadim ni ko diw moo ma jaayoon te gis naa ci ay léegi atte na delloo si ko duñ ko wa fi am lihi niki yan wax ju mujj jiini deesu ko mu ñandiku ak wax ju jëkk jëleen des na ko mu ñandiku ñeen leen ala xilaatin ci wuute ndax dañ leen yem ci wuute te kon dañ leen yem seen saarif baat noonu rek am moom kay du wuute ab dëppoo la bam ne des na ko mu ñandiku dañoo yaakaar ak ñu biseem bam ne kenn du ko mu ñandiku dañoo yaakaar ak ñu biseem taawilaani am na ci ñaar jantal bañ ne des na ko mu ñandiku dañoo xam fa mu fàddu bañ ne deesu ko mu ñandiku dañoo xamul fa mu fàddu taawilaani am na ci ñaar jantal sëriñ bi nee na su ma xadaa topp xadi atte delloo si ga nag seen asbatan den saxal na moom mustari udatan uda mu arraxatan jëri ji ñu taarixaal wa seetu sirayin ak yéen ñu jënd ilam jëli si ngeen jiñum alima ñoom ñaar waaye bu nangoo jin ñu wax dëgg yàlla dama koo jënd jënd bu wér kon su boobaa dana wér ilam jëli si ngeen jiñum alima ñoom ñaar watare na delloo fawtuhoo faata sila tax yi seen ci yëpp ne da ngaa jënd sila yàlla dogal nga fekk ci ayib waaye faat na kon nag doo ko delloo ka dégg nga de ka ci taabati ni ki jotoo da ngaa bind da ngay tàmbali jotoo jàmba doo gis ay dootoo ko delloo wata bi ak gannaawal kon nag nu ñuy def fay sabat yu xaw mu la ñuy xayma ci laasa saaliman muy aji mucc ba mu muccee wa mahi ban ba mu abee ak ba mu amee ayib wooyoo ko su jàppee li na samani ci njëg ak nisbatu ak sénéga ñu seet maanaam lu ca xayma ja wàññi ca ba mu muccee ah loola ñu daal di koy jox ki nga nga delluwaat ca kala ko jaayeen mu jox la ayib maanaam xëy na ayib jëlam wàññi ca ba mu muccee boo dafa taxawale na jaam ba si day ni ci tayleem li xilaas yi ba ca xettileem da ngaa jënd ab jaam yàlla dogal nga fekk si ayib waaye tayle nga ko xaaral ba dindi ko ca li xilaas yi ci kanam tuuti boo ko jëlee ca tayle ga ba delloo ci ko su la neexee nga delloo ko booy jaay ci ak yooleem def na ko taw li xilaas yi ba ca xettileem bu ijaarati ak yoolam def na ko taxawal li xilaas yi ba ca xettileem waru dañu door delloo na nag lu ñuy jaay dégg nga de ci la muy tax ca kala ko jaayoon ndem dañ caa teg ayib ci la muy taxaay ndem soppikuwul nag ci yow yow itam bu fekkee tey jaam bi dañ la ko jaay nga tayle woon ko su boobaa boo ko génnee ca tayle ga mën nga koo delloo kala ko jaay ndem dafa am ayib waaye nag bu mu soppiku ci yow naka noonu boo ko yoole woon yàlla dogal mu am ayib boo ko génnee ca yoole ga boo dikkee mën nga koo delloo waaye bu mu soppiku ci yow mu di leen rénéer ci maanaam delloo bi ndem soppikuwul ka aw di fii na ca dellu si lu ñuy jaay la loxoo ñeel mustari bi ay bin ci saabas ayib ni ki tey da ngaa jëndoon silaa yàlla dogal moo am ayib ah nga dem jaayaat ko keneen kooko delloo si ko kon su boobaa mën nga koo delloo ko la ko jaayan bu jëkk aw di milkin wala ci moomeel mustaanatin guddi gu ñu sos te bañ xin ni ki jaay ni ki tey da ngaa jëndoon silaa moo am ayib nga jaayaat ko keneen da nga de kooka jaayaat la ko nga xam ne kon dellu si waat na ci yow nga fekk si ayib yoo xam ne kala ko jëkkoon a jaay moo ko sa defoon ba tey nga dem delloo ko aw hibatin wala maye da ngaa jëndoon silaa ci nit yàlla dogal nga jaayaat ko keneen kooka mayaat la ko ba mu la ko mayee nga gis ci ayib yoo xam ni kala ko jëkkoon a jaay ci la ci moom la sosoo woon mën nga koo delloo aw ibsin wala doon da ngaa jëndoon ab jaam may ko sa baay yàlla dogal sa baay faatu nga doon naat fekk ci ayib yoo xam ne kala jaayoon jaam ba moo ko ci defoon mën nga koo delloo léegi nag seen baawoon dem jaay la jaam ba laa ñu dim ñeel ab jaambur mut la xam moo xam seen bu jëkk gën a wala gën a bari wala lu gën a néew falaaru jox deetul dellu nag ca kanam tuuti ngay xadam te bopp falaaru jox ca kanam masalan tey da ngaa jëndub jaam jaam bi am ayib yow nga dem jaay ko keneen benn jàmbur jàmbur ba moom dem ak moom ñun la ah yow de jàmbur nga jëndoon te diw am na ayib sañoo dem te kala ko jaay naan ko joxuma xëy na ayib bi déedéet ndax comme ka ko jënd jàmbur la te dem na jeex na aw wala mu jaay ko loxoo ñal aji jaayam bi mu ci samin ci kenn jëgg waa ji jaay na la jaam ci fukk nga dikk jëndaat ko ci yow ci fukk ñun la jaam bam la jaay bi nga bi nga ko jaayaatoon day te mu jaayoon la ko fekk na ci ayib ah du joojee ni ngay dellu ci moom naan ko kon xëy na ayib bi déedéet kon falaaru jow ba tey deetub dellu comme moo la ko jaayoon ci fukk nga jaayat ko ci fukk mbir ma yem na foofu aw bi ak tara wala lu gën a bari in dala sa ndéem na bon na ci ayib ni ki waa ji jaay na la jaam bi ci fukk yàlla dogal dikk jëndaat ko ci yow ci fukk ak ñaar fekk ci ayib yoo xam ne moo la ko ca na bon falaaru joxe deetub dellu ba tey wa ilaa ndéem na bu la ko ca woon nag ni ki jaay na la jaam bi ci fukk jëndaat ko ci yow ci fukk ak ñaar fekk ci ayib te nëbbu la ko ci woon radda mu delloo la ko sumaru da topp delloo ko moom itam alihi war na ko ndax comme moo la ko jaayoon ci jëndaat ko ci fukk ak ñaar fekk ci ayib te nëbb la ko ci woon mën na la ko delloo su la ko delloo yow itam nga delloowaat ko ko ndax moo la ko jaayoon nga ne ma ndeem dafa jaay jaam ba loxoo ñal aji jaayam bi aqala ci lu gën a néew nekk da ngaa jënd jaam bi ci waaju ci fukk dellu jaayaat ko ci juróom ñett ñu gis ci ayib mu fekk ci ayib waaye ayib bi nag yow mi ko ko jaayaat juróom ñett defoo ko ci kon kàmmala na la mottali na la mottali ñaar dërëm ndax kon moom fukk la la ko jaaye woon nga jaayat ko ci juróom ñett te ayib bëgg ca kon nag ñaar dërëm yooyu du dina la ko delloo ba mu mat sëkk dégg nga ne ba taxayrul mat bi sotti kooku la ñu jaay yéen tamit si dem diggu doomu la wala woon ñal la ko ak sun xat yi ni jàpp ay jëjjit war a doo ak delloom silaasa wa dëppul aadi si ànd ak jëy ay gisat bu fekkee li sotti ko li ñu jaay yow mi ko jënd ba mu accès ci yow dafa sotti waaye sotti ko googu sotti ko diggu doomu la may nañ la ñaari mbir su la neexee nga téye laaj ayib bi njëkk bi su la neexee nga delloo daal di def ay da nga ca sos yow itam nga boole nga boole silaasa ak ayib bi xëy may ayib bi delloo bu boobaa nag wax ko yi maa xëy ma xam ne leen ñoom ñaar ñooñu bu tax ñoom ma bi ci xëy ma lu ñu jaay la yow ma daminoo bi ba war na ko almasiri ak jënd ja ñu tënk yaxawa ni ki da ngaa jënd jaan bi ci fukk mooy yaa yàlla dogal nga fekk ci ayib bi ñaar dërëm mu bañ na xëy ma ji juróom-ñett la mooy xaar yow itam nga sos ci ayib bi ñaar dërëm xëy ma ji juróom benn su la neexee nga téye laaj ayib bi xadim muy ñaar dërëm bu la neexee nga delloo boole ñaar dërëm yu nga ci sos wa loxoo ñeel na ko it um saada ndeen dolli na moom mu sëri bi ka sapkan ci lu demee ni ci cuub ñeel na ko an yaru damu delloo waaye sari ka mu bokkaale bi maa demoon xam ne saada dëpp na yamal bañu keroog bi ci njaay yow nag tey da ngaa jënd mbalaan mi yàlla dogal nga suuf ko xam nga suuf xëy ma nga waaye ba nga ko suubee ba noppi nga gis ayib bi sañ ngaa delloo mbalaan ma su noppee nag sa xëy may cuub da nga ca dolli loola moom da nga ko bokkaale maanaam ku jaay mbalaan ma jox la loola alal la sëriñ jox di gën a tënk unité bi mu jële ko ci wuti sëriñ bi ne na wa jubee jàngeef na bii ci cuub alxaadisu ayib bi sosu maanaam tey da ngaa suub mbalaan mi waaye def nga ci ayib cuub gi dana la jàngal ayib bi nga ci def yow bu la neexee nga delloo ko te doo joxe dara cuub gi jàng ayib bi nga ci sos leen wax pour ko teqaleef na bay na mu dellu si diggante bàyyi mën na bu ayib wa xëy yi ak bàyyi mën na bul ayib yi naq te ne wàññiku na dégg nga de xëy may malaan ma ci sa bos cuub ga masalan tey waa ji dalaa jaay malaan bi ah léegi nag day malaan ñu dul suub nga suub ko kon kon yow itam def nga ci lu ko wàññi niki malaan mi fukk la war a jar mooy yaxawa ju mucc léegi fekk nga ci xayma yi ñaar dërëm muy juróom-ñett yow itam nga suuf ko suuf di wàññi ci xayma def la ci fas yéene bàyyi mu nëbb ayib ak bàyyi mu nëbb léegi bu dee kala ko jaayan def laa nëbboon ayib bi kon da nga koy delloo noonu malaan mi ak cuub gi li muy wàññi wàññi xayma ji doo ci yokk dara su fekkee nag nëbb la woon ayib kon su boobaa la sa cuub ga wàññi fokk da nga ko ca yokk mu di leen jox jox mu ne ko alaaki naka ka alaaki naka alkub jàmb mu ne ko di ci ayib di nëbb ja kooku moom tam def na ci fas yéene bàyyi mu nëbb ayib ak bàyyi mu nëbbul ayib su fekkee waa ji dalaa jaay jaan bi dégg nga de ndekete jaan bi day sàcc mu sàcc ni dagg loxo bi kon su boobaa dañu seet bu fekkee bàyyi fu daf laa nëbboon ayib bi da ngay dellu si mu jox la sa njëgu jàmm lépp da nga de nga nga dem sa yoon su fekkee nëbbu la ko woon nag xaymay xadim ja dong xaymay ayib ja dong la lay jox waaye kenn du ko firi day le nga ne wa ak yii ak jàppam min ci mu sëri daat la ci lu gën a bari waa ji dalaa jaayoon silaas wëlbatiku jëndaat ko ci yow lu gën a bari leneen jaay na la ko fukk jëndaat ko ci fukk ak ñaar fekk ci ayib def na ci fasale bàyyi mun na bon ayib ak bàyyi mun na bul ayib su fekkee moom bàyyi mu njëkk daf laa nëbboon ayib dikk jënd ko ci yow ci fukk ak ñaar kon du am dara doo ko delloo dara day ñàkk da nga de jaa jaay loolu ko ci fukk jëndaat ko ci fukk ak ñaar fekk ci ayib yoo xam ne moo moo moo la ko nëbboon jeex na kon it du dem da bu fekkee nëbbu la ci woon ayib nag su boobaa sañ naa dikk nga jox ko ayib yi xadim jooju waaw waaw wala boog mu delloo la si laa ci nga delloowaat ko ko ba tey nga ne wa tabarin ak dañtam ne naa ci loo xam ne lan yàlam xamu ko tey yow da ngaa jëndub jaam kala ko jaay dañ tanu ne la xaw ma ci ayib ju nëbb boobu ayib ju feeñ ah nga dem fekk ci ayib kooku def na ci fasale bàyyi mu nëbb ayib ak bàyyi mu nëbb ayib su fekkee loolu mu ni woon xaw ma ci ayib ju nëbb boobu ju feeñ day fen kon nag su boobaa dañ tanu ko du ko jariñ dara lu muy def da nga koy delloo mu delloo la sa njëg da nga def su fekkee nëbb la woon ayib ji nag ah nga doo ko mën a delloo looy def da ngay jàpp xëy na ayib bi xadim ja rek da nga def loolu dong la sëriñ bi nee na wala di simsaarin ak delloo simsaar ju ulan juhul da nga def simsaar mooy koptóor koptóor bi nga xam ne moo tegtaloon ki doon jaay ni ko jiw day jënd ndox ci diggante bi def nag léegi dangaa dem daral benn waaye jaay na ko ci fukki junni ka nga xam ne moo nekk daral ga moo ko ko jaayal waa ji yëkkati ci junni jox ko léegi nga dikk fekk fas yu am ayib def na ci fasale bàyyi mun na bu ayib ak bàyyi mun na bu ayib su fekkee ki la jaay fas yu xamoon na ayib di nëbb kon su boobaa neexal ba mu neexal ka nga xam ne moo ko fa jaayal parce que mooy junni bi kooku du ko delloo dara moom mooy fay fukki junni yu ma sëkk soxla nga delloo ko fa su fekkee nag waa ji nëbbu la woon ay bis kon nag soo delloo see fas bi junni ba mu neexaloon ka ko jaayaloon fas wa dana ko boolewaat te juróom-ñeent ya jox la kon suñu saar ga day ñàkk ci leen def na ci fasale bàyyi mu lu bees loolu mooy misaal wa mat bi en ak lu ñu jaay limite bi ba delloo si lu ñu jaay li maxal yi ba ci barabam jënd doon dem delloo si na ko béy bi saabu sëy nekk da ngaa jënd fii lu ñuy yal ne ci pep wala seet wala gerte yóbbu ko ba sa place nga gis ci ay def na ci fasale bàyyi mu la bu ay bàyyi mu la bu ay su fekkee ci la ko jaay moom daf laa nëbboon ayib foofa nga koy bàyyi fa nga ko teg moom mooy fay yool bu ko delloo si waat ba ci place am su fekkee nëbbu la woon ayib gi nag ah su boobaa ah moom dalay da dalay jox sayu xadim ga rek maanaam su fekkee nëbbu la woon ayib gi taxal nga ko ba yóbbu ko da ngay day seet la ca ayib rek bu ko neexee mu jox la loola waaye du ko delloo si waat ci place waaye daal bu fekkee moo la nëbbu ayib gi moom da nga koy bàyyi foofa muy fay ko toxalaat ba delloo si ko ci place su fekkee nëbbu la ko woon nag dégg nga de dalay dikk rek mu jox la sayu ayib gi loolu wa ilaa ndeem nga xam ni dama ne woon wa wa ma bin ak delloo si luñ jaay li maal yi ba ci barabam dégg nga de wa ilaa ndeem danaan wa ilaa ndeem dafa nekkoon di nëbb ayib gi rek kon nag da delloo ko dem xar ma ndeem barab ba jegeñ la wa ilaa ndeem barab ba jegeñ la jegeñu faatu faatu ni ki tey da ngaa jënd fii te toxal ko ba yóbbu ko fuuta xam nga dafa sori kooku moom donte bàyyi amoo la nëbboon ayib yi faatu faatu la waaye da ngay ñëw rek mu jox la tayub xadim ga maanaam lu manqué ca pet ma da cay ayib lépp mu jox la tay ga te nga bàyyi ko foofu waaye bu ko jéem a indiwaat fii tey mu dëlee na réer si da ngay téye laaj xadim rek mooy lan da ngay téye sa laaj tay ga ndax ay guddi gi doomu la wala nga delloo ba ca ca xat xat si daaba ci ñu ci làpp daaba da ngaa jënd daaba léegi yàlla dogal nga teg ko seet ba mu làpp nga door a gis ayib gi dégg nga de kooku ay guddi gi doomu la su ko defee dañ lay tànnaloo bu la neexee nga delloo jël ayib bi xaajis ji mooy làpp ci su la neexee nga téye laaj xadim wasan ne ak duufub daaba da ngaa yafal fas yi ba mu suur nga door a gis ayib gi su la neexee nga téye laaj xadim bu la neexee nga delloo joxe xaadis wa aman ak gumba da ngaa jënd jaam waaye dafa gumba fi yow fekkoon nga fekk ci jeneen ayib judul gumba ga waaye gumba gi ci yow la amee bu la neexee nga téye laaj xadim bu la neexee nga delloo joxe xaadis wa salalun ak sen jaam bi dafa seme ci yow fekk jëndoon nga ko am na ayib judul sem bi yow itam ci yow la seme ayib ju dig doomu la boo téye laaj xadim boo delloo joxe xaadis wa ta si jaam itam sëyiloo jëbeer da ngaa jënd jëbeer dem sëyiloo ko waaye fekk na booba di xamoo ci woon ayib ji ba may ko jëkkër ba noppi su boobaa door a gis ayib bi so bu la neexee nga delloo dégg boo téye laaj xadim boo delloo joxe xaadis dégg nga de nga ne woo jubéer a jàngees na nag ah dil wala di ci doom maanaam bu fekkee jubéer bi amoon na ayib sëyloo bi nga ko sëyloo xam nga moom itam ayib la waaye doom ji mu ci am mën na koo jàng su la neexee boo ko delloo boole doom ji rek doy na nga laajaat sa njëf ñu ne faaw mu ne ilaan yaqbalu woon dara boo nangu na ko mustar yi bil hadis ak ayib gi sosu tey nag ayib gi sosu ju néew jooju nga xam ne bi nga jëndee silaasi fekk ko ci fekk ci ayib ju yàgg yow ayib gi sos bi nga ci def ju néew la kon nag bu fekkee kala ko jaayoon nangu naa jël silaasa ànd ak ayib ji néew jëf kon fakal adama nekk ñàkk la ci kanam maanaam dootoo joxe dara da nga koy delloo te doo joxe dara fakal adama aw yàqi la wala néew ayib ji ayib ji néew it boo ko ci sosee fakal adama nekk ñàkk la nga ne ko lu ayib ji néew mu ne ko waxtu dégg nga de mu ne ko lox loxaal da ngaa jënd jàmm rek andi ko ci kër gi gis ci ayib waaye fekk na mu siburu fi yow siburu ayib ji néew la soo tee da nga de laaj xadim boo delloo doo joxe dara wala ma din ak wànneen jaam bi dafa wànnent dong nga fekk ci ay boo téyee laaj xadim boo delloo doo joxe dara wa su daayin ak kaañoolu bopp mooy métti su bopp soo téyee laaj ay bi xadim boo delloo doo joxe dara wa saa bi sutuñ damug wex léegi tey maanaam ngay wa dafa dañ ci yow boo téyee laaj xadim boo delloo doo joxe dara wa xas uman ak aju wayes di siburu siburu ci wayes moo ko dal soo delloo dégg nga de doo joxe dara boo té dégg nga de soo téyee laaj xadim ba wàcc say bin ak laal jeeg da ngaa jënd jeeg laal ko ba noppi door a gis ayib bi soo delloo doo joxe dara boo boo téyee bu la neexee nga laaj xadim waqatin ak doog muxtaadin guddi guni baaxoo nga xam ne tey dën nga tif yi waaye dog di nga ko dog yàq ko kooku nga gis ci ayib bu la neexee nga téyee laaj xadim bu la neexee nga delloo soo doo joxe dara nga ni wal muxrij aji génnee anil maqsudi walis lu ñu jublu la bu fekkee sotti ku gën a génnee na xilaafa ca lañ ci jublu woon bu fiitul aji faatal la kon fan usu saygam rek ngay am waaye ak tay rek moo ci war da ngay delloo rek ñu jox la tay waaye doo ko delloo misaalam ko ci bari sakkirin ni ki magu ndaw da ngaa jëndoon jàmbu da nga de ndaw waaye màgg la nga gis ci ayib da ngay dellu laaji xadim rek wa xaramin ak màggat jaam bi dafa màggat say loxo nga gis ci ayib da ngay dellu laaji tay bu jëkk ga waaye doo ko delloo wai daay bikin ak tëdde xiig léegi da nga jànq xam nga dafa am valeur soo ko dajee ba mu nekk jeex nga gis ci ayib da ngay dellu laaji ayib jëf den ayib xadim waaye doo ko delloo waqatin ak doo xëri mu taadin doo xam ne duma guni baaxoo léegi piis bi da nga ko dagg ay morso ay morso door a gis ayib bi kooku doo ko delloo da ngay dellu laaji xadim ci laan yelli kendare boo alkula bi hay bi ita bis ci ayib bi fekkee jaam bi tay dañ la koo jaay yàlla dogal mu dem ah dee ci ayib dina bëgg ah kon nag su boobaa da ngaa dellu ci mus fekk bàyyi kala ko jaayoon dégg nga de mu delloo la seen jëf aw yaxli ko aw samaa yi wala mu àgg si ndogal yàlla samanoo ci jamonoy daw ja misaalam mooy kamaw tii naka dem ci ibaaki ci daw su fekkee jaam bi waa ji wala koo jaay nëbb na daw bi yàlla dogal jaam ba daw dee ca da ngaa dellu mu jox la seen jëf wayin baaxoon dem jaay na almustari wayin baaxoon dem jaay na ko almustari aji jënd ja waxala ka mu alko bay bi ci ayib bi nëbb ja léegi de léegi raja mu dellu moom mustari saani ngay wax raja dellu mustari saani ca kanam ala raja dellu mustari saani dégg nga de bi jami sama ni ca mbooleem dëgg ngay xàggan ca kanam ala mu dellu si waral bàyyi la wal ma di aji nëbbu ayib ina min tin dem jàpp ndu rujoo ak jëlam ala bàyyi ci ak jaayam xam nga lu mu bëgg a wax dangaa jënd jaam bi léegi dikk ndekete jaam bi day daw nga jaay ko keneen mu dawee ca loxoy kook ba mu dawee ca loxoy kook ak dee kooka nag moom mooy mustari saani mustari saani moom mu mu dee ci loxoom moom dana dikk ci bàyyi fu lawal ca la ko jaayoon dégg nga de mu delloo ko njëgam lépp ndeem mënu laa gis yow yow mi ko ko jaayoon na ñun ko nir jow ala day yi bu fekkee daf laa teg nga tukki la dellu ca bàyyi ko lawal ma nga xam ne moo la ko jaayoon yow dégg nga de mu jox ko njëgam lépp di jënd semaine léegi nag yow jëndoon nga ko ci ji ci juróom-ñett dem jaay ko ko moom ni mu dee ci loxoom ci fukk te in saa dem dolli ko la dégg nga de maanaam tey da nga koo jëndoon ci fukk ak ñaar laa wax moom dikk jaayee ko ko fukk mu dem bàyyi ulawal jox ko fukk ak ñaar ba tax mu ne fa in saada ndeem dolli ko la ndax bu ko bàyyi ulawal joxee fukk ak ñaar sa ndolantal lisaan yi ñel na aji ñaareel ji su boobaa nag ndolantu loolu dégg nga de yow mi ko ki mu ko jënde woon ci yow muy bàyyi usaan yi yaa moom ñaar dërëm yi nag yow ndax moom fukk rek la sañ a jël ci njëg ndax moom fukk nga ko jaayaate woon way naq sa ndeem wàññiku la ñi ki bàyyi ulawal dala koo jaaye woon juróom ñett nga jaayee ko ko fukk mu dem bàyyi ulawal jox ko juróom ñett saa jàmm yàlla ndax yu kamiloo da koy mottali dégg nga de yow mii nga xam ne yaay bàyyi husaani yaa koy mottali am doo ko mottali te juróom-ñett yàlla yem xaw laa ne am nañ ci ñaari wax walam yow la deful jumloo mustarin aji jënd do yet koo xam ne woyof na ruyatoo gisub ayib maanaam da ngaa jënd silaasi dikk dellu si waat ci kenn ko jaay ne ko silaasi am na ayib mun la gisoon nga ko kenn du la ne ginal yow mustarin ilaa bi dawal ilaa ci ndare bi woote wan ndare boo bàyyi dara wanoon naa la walaa bi daal di jënd nangu bii ci ayib su la nee da ngaa nangu woon ayib bi nga ni ko nanguwuma ko ba tey kañ du la gindoo ilaa bi dawal mux bir ndawe ci wooteeg aji solo nga xam ne da la ne woon waxoon naa la ayib bi nga nangu kon nag su boobaa sañ laa gindoo wala bàyyi bu jege ne aji jaay moom itam gis ko gindoo ba mu ne andoona koom jàmba lam yaa bax du jàmb buy daw lii baaxi ngir daw jàmba bal ko bi ci jegeñ fañ ko jaayee da ngaa jënd jaamam diggante bu gàtt rek jàmba daw ah mu ñëw ni la ah jaam bi dawul du daw de kon it kenn du la gindoo